asalaamaaleykum àdduna bi yëpp Oustaz Ahmed Diop mbëkk moo leen di nuyu borom yàlla lay kese barke bi mal xaaba lakk bara gaa yi lii ku ci waxul da ngaa soxor Pape Sidi Fall def na lu rëy yëkkati 4 millions francs CFA yëkkati ko jox ko néew bi barke bi mal xaaba lakk bara am na ci ñoo xam ni ruus nañ am na ci ñoo xam tey buñ doon beñe coppati chey nañ am na ci ñoo xam si buñ doon basante barke yombal xiyaama lakkabar boo daggee ay sax ngay gis am na ci ñoo xam ne buñ doon sippame barke yombal xiyaama lakkabar boo ko xaree gura ngay gis nekk ci yenn tele yi di ngaw ngawi naan Pape Sidi Fall li muy def day suub am na loo xam dangaa war a def sutura nangam sàngam lii mooy nit fekk ko fa mu nekk da koo fekk ci li muy dund barke bi yombal xaama lakk bar mu wax ak moom xool ko nit ñi gis ko ku ci man def ko ku ci mënul yaa xam Pape Sidi Fall yàlla na la yàlla fay waa bay ni kum ci yoon xurujukum gupp gupp gupp faada gupp lu maay gupp lëfër lëfër man damaa damaa kontaan ba sama xol bi sedd barke bi yombal xaama lakk bar lii la Pape Sidi Fall barke bi yomal xeama lakk bar kontaan naa ci yow lool yow àdduna bi yëpp la wala delloo wala delloo njëkkal kontaan nañ ci yow gis nañ li nga defal néew bi kontaan nañ bu baax a baax waaye am na ñoo xam bu nit di def lu baax ñuy toog fan it toog di fenn di dee tàmbali du dugg ci su ci su yoon leen nekkut mbaam bu nekkan ci àll bu ne ŋaax ŋaax ŋaax bu paree ñu ne loolu da du mbaam la aw fas la bu nekkee ci àll ba bu ne eh, eh, ñu ne loolu da du bëy aw aw melancaat la yow luñ wax nga ne yaa ko xam ci xamoo dara wuma merde jërëjëf Pape Sidi Fall yal na la yàlla taxaw nit ku baax nga lii mooy wane ne yow jullit nga doomu aadama yi nanuy jàppalante niiw bi kenn di yow def nga fi loo xam si barki bi mbal xaamal akabar bu la Sénégal dellowoon jëkkal <laughs> ñëw ba rab bu dëgër lay teg Pape Sidi Fall yal na la yàlla taxaw waa bay nukum ci yow nu xurujukum guppo gupp gupp faada gupp lamen gupp lëfër lëfër waaye jom jàlla jajji Fall ma sàmba nee na Fall nee na dembaak nee na madame Diallo nee yaa si ñuut foofu nga bokk wasalaam